transport yoo xam ne digga yaa damaa ñëw fii yëguma e ko woon waaye gëral naa ko ne bés bu seeloo dinañ fexe loo xam ne dinañ dinañ saafara parce que problème si frontière kër ayib ak ak si wàlli Dakar Dem Dikk yooyu wa waa àggee nañu ko wax nañ ne suñu àggee dinañ seen ko nuñ saafara nuñ si

Sénégal ak Gambie benn dëkk démb euh, bi ma koy dalal ci hôtelam ndax ma ne su dul woon protocole bi sax ñun bu ñu génnee fii rek gënu ñu ñun Dakar mun naa doxi samay soxla kon réew yi ñaari réew yi benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi euh, li fi jaar ba tàqali ko def ko ñaari réew ñu ñëpp xam ko waaye du loo xam ne lu mun a tënk réew yi moo tax ci turu son excellence monsieur le président de la république euh, monsieur Bassirou Diomaye Faye ñu leen dalal yow ak sa délégation yëpp di wax ni da ñu defal teranga bi ngeen bàyyi seen yitte ñëw seet si ànd nag ak délégation bu tàkk ndax ànd nga ak lu mat ñett wala ñeent ci say ministre ak yeneen collaborateur ñëw def visite quarante huit pour ñu mën a passer en revue li nga xam ne mooy coopération diggante Gambie ak Sénégal ñëpp xam nañ ni la vision du président Diomaye Faye vision panafricaniste la dañu gëm mooy faw rek ñu dajale doole yi fexe ba gën a doon benn moo tax lépp loo xam ne day féewale réewu Afrique yi ñu mënuñ cee am te lépp loo xam ne li nga xam ne moom la ñu bokk ci ay ensemble sous-régionaux dina ko tas ñu mënuñ cee ànd loo tax bi mu toogee ba léegi gis ngeen jéego yi muy dox ngir li ñu bokk ci CEDEAO ñu fexe ba téye ko bañ mu tasaaroo kuy wax nag kuy essayer dajale nag li la war a njëkk a yitteel mooy sa dëkkandoo bi la gën a jege ndax ku mënul ànd ak sa dëkkandoo mënoo ànd ak ki gën a sori dëkkandoo bi gën a jege senegal nag defe naa mooy Gàmbi loolu moom yàllaa ko def moo tax faw rek daje yu mel ni di am ñu koy gën a jegeel sax di gën a waxtaan donte nag coopération bi dëgër na loolu feeñ na ci waxtaan bi dëgër na ci wàllu institution ndax mooy coopération bi gën a élaboré ci niveau co euh, niveau institutionnel yi nga xam ne teg nañu depuis kuréel bi nga xam ne mooy dajale ñaari président de la république kuréel bi nga xam ne mooy dajale ñaari premier ministre yi le premier ministre vice président bi commission yi nga xam ne ñoom saytu accord yi ñuy def defe amul coopération bu Sénégal keneen a élaboré bii kon loolu na ni diggante bi na dañuy ko a ko gën a ndax ni ko président kon waruñoo nelaw ba yandoor saa su ne rek nañu gën di defar di gën a waxtaan ci waxtaan yooyu nag lañu càmbar poñ yi nga xam ne yitteel nañu yitteel na suñu naataango Gàmbi yéen ñëpp yàgg ngeen dégg ñuy wax bi gouvernement bi toogee ba léegi euh, gis ngeen lu bari ci communiqué conseil des ministres ñuy wax suñu yitte ci euh, àll bi àllu Casamance bi particulièrement nga xam ne ñu ngay dagg garab yi di yàq euh, àll bi ba nga xam ne bu ñu ci jógul rek mën na am dina yàq lu bëri foofu nag dañ ko seet ak suñuy naataango gaab yi ndax ci frontière ba la moo tax waxtaan am solo parce que pour ñu mun koo régler faw rek ñu ànd ci lënkaloo ci ak suñu mbokku Gambie loolu nag ay accord amoon na ci kenn ku ne jën na ci ay résolution dañuy góorgóorlu rek ba gën koo far bañ koo dëgëral ba nga xam ne patrouille mixte yi nga xam ne dañ ko war a def diggante suñu armée ak armée gambienne diggante suñuy service muy eaux et forêt muy protection civile ak ñeneen ñeneen ñu ànd ceeg suñu mbokku Gambie ñu gën koo dëgëral wax nañ lu bëri ci jëm ci wàllu euh, déplacement yi transport beeg ñoom seen am nañu ci jot a soulevé jëmale ko ci suñu mbokk gambien yi te xam naa ni euh, dinañ ci def système kattan pour euh, solutionner problème yooyu wax nañ lu bëri ci li jëm ci énergie tamit rawatina électricité bi ak euh, nu ñuy échanger suñu expérience ba nga xam ni li ñu dëgmal muy beneen compact bu ñëw ci MCA bi ñu war koo dugal cette fois-ci muy compact régional bi ñu fexe ba ànd ceeg suñu mbokku Gambie mu doon loo xam ne luy euh, luy ëmb lépp la loolu it am nay tegtal liñ ci joxe pour ñu liggéey ci ci wàllu institution yi wax nañ jëm ci secrétariat permanent bi nga xam ne moom mu war a doxal dëgg-dëgg mbir mi te ñu gisoon ni xawoon naa taxaw te li ko war bëri na am na ci ay aspect matériel am na aspect financier am na yeneen aspect waaye gëm naa ni bu jógee ci réunion bi yooyu yëpp soob yàlla dina ba ñu mën koo joxaat gëddëm dooleel ko lañ ci war a def ñun Sénégal bokk na ci ñi ñu war a nommer te nommer wuñ ko woon boobu ba léegi ñu ñetti nit soobee yàlla dinañ ci jël matuwaay yëpp ba nommer leen ñu gën a gaawee yi nga xam ne siège bi Sénégal la war a nekk ñu def ci liñ ci war a def suñu wàll wax nañ ci wàllu napp gi muy lu am solo ndax projet moom yàlla daf ñoo may ñu am ak Gambie frontière terrestre frontière maritime ak frontière aérienne donc wax nañu ci li jëm ci napp gi muy domaine boo xam ne coopération bi dëgër na lool accord yu ñu signé am na te ministre des pêches yi fi nekk wane nañ ni ñu ngi ciy liggéey lu bëri kon loolu it ñu rafetlu ko wax nañu lu bëri nag ci li jëm ci formation ak coopération ndax bëri loo xam ne dañ koy partage ak suñu mbokk Gambie ci wàllu formation moo xam ci wàllu formation militaire euh, wàllu formation ci domaine pêche ak yeneen ak geneen loolu it jël nañu résolution gën ko yaatal yokk ko bu baax a baax a baax parce que bokk na ci liy gën a dëgëral diggante ñaari réew yi yi nga xam ne nag dafa jëm ci wàllu kaaraange am na lu ci suñu mbokk Gambie jukki ci li nga xam ne seen yitte la dégg nañ ko te soobee yàlla nañ ci andi ay solution yoo xam ne nañ ci teg seen bët ñoom ñu nit am na lu ñu yëkkati te li ci ëpp mu ngi jëm ci euh, li ma wax léegi ci voie bi ak yeneen yu mel noonu ñoom it ñu jël ci ay résolution ci gàttal daal dellu rafetlu coopération bi ndax diggante élection son excellence le président Bassirou Diomaye léegi ànd eh, na yu bëri yu fi xew yoo xam ne ci coopération bi dafa wane eh, eh, solo bi mu am bokk na ci prés son excellence président Adama Barrow ñëw na Dakar son excellence président Diomaye dem na Banjul ñaar yoon ci visite d'état ak ci cadre OCI waye commission yu bari surtout en matière militaire dañu leen ci digënté bi bii Banjul Dakar te benn ku nekk ñu ko sanctionner ak ay accord yu am solo ci ñuy gën pour saytu karangé Sénégal ak Gambie ñuy lënkaloo ci wàllu échange d' information waaye di def ay patrouille mixte ba gën a mën a saytu lépp luy jëm ci sécurité ñaari réew kon lu ñuy rafetlu la di gërëm encore une fois euh, son excellence monsieur le vice-président di ko sant euh, di ko wax tamit ni bu soobee yàlla comme ni ñu ko ñaanee ci invitation euh, ci lu ñuy programme yi kan néew incha allah dinañ ñëw ziar si leen gàmm ñu gën a yaatal liggéey bi gën ko xóotal en tout cas ngeen gërëm yéen seen délégation yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Peut-être un petit résumé en français sur les conclusions issues de cette euh, séance de travail de ce matin. Merci. Il faudrait demander le résumé en anglais d'abord le président pour ce qui est le paralysme. Euh, en anglais d'autant que télévision aussi merci beaucoup. Um, thank you very much. Um, uh, first of all, I want to thank excellent Prime Minister. for, for the reception accorded me and uh, uh, my, my delegation. Um, and I think, as has already been said, there are a lot of issues that we have discussed. Um, it uh, borders on various issues. For example, we discussed a lot on the issue of the cooperation in terms of fishing, because we share the same uh, marine resources. And as the Honorable Minister of Fisheries of Senegal says, the fish don't know boundaries, so they cross from one boundary to another and a lot of uh, agreements have been signed, and uh, some issues have been raised during the meeting, and uh, we have concord and resolved ourselves to actually make sure that some of those agreements are, are implemented. There have been discussions on the um, in defense, um, defense um, security, for example, the, the joint patrol. Um, the Honorable Prime Minister has mentioned some of the challenges that we have particularly in, the, in the southern border, uh, our southern border with, uh, with Senegal, that is the Casamance region. Um, now, various um, agreements have been done. Now we are implementing cross-border um, um, visits as far as the two the two armies are concerned, and I think that has been that is very very positive. Uh, we have raised some issues that the honourable prime minister have noted that uh, I think they will they will take. Um, they have raised the concern of the deforestation of the, the forest in, in, in And we have resolved and convinced them that, particularly His Excellency President Adam has resolved to make sure that, uh, like they say, if there are no buyers, there will be no sellers. So we are making sure that all the agreements are in place to protect the forest cover of Kazamas, because protecting the forest cover of Kazamas also protects the environment um, in the um, in the Gambia. There have been discussions also in terms of the Millennium Challenge account. Um, Senegal has actually implemented two compacts with the American government. Now they are now going into their third compact, which is the regional compact that is going to concentrate on the blue economy. Uh, we have been advised by the um, the administrators of the Millennium Challenge Corporation to initiate discussion with the Senegalese government. And I think it's one of the things that we have discussed so can be included in that regional compact. And we are very happy with the response that we have um, got from His Excellency the Prime Minister and, and, and his team. I think, um, in, in, short, I mean, there are a lot of other areas that have been discussed. The issue of the issue of the Senegal Government Secretariat. is an institution that was established, um, the discordance started since 1967, and uh, the institution actually started operation from 1972. But after some time, there were some, some witnesses, because that is institution that is mandated to make follow-ups on of all of these agreements that we signed between the two countries. Um, as His Excellency Prime Minister said, there were some positions that the Senegalese government were supposed to fill and they have not filled, but they have now committed themselves that after this, in a very short time, some of those vacant positions will, will be filled and we make sure that we empower the Secretariat to actually follow up on all the agreements, including those that we have we have done today. So in short, we want to use this opportunity to thank His Excellency Prime Minister and by extension, extend our gratitude to His Excellency President Basim Jomai for the reception and uh, the hospitality that is accorded to me and my delegation. Merci. Thank you, His Excellency. Monsieur le Premier ministre, nous vous retournons la parole pour la déclaration finale en français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Je vais commencer par, euh, au nom du président de la République, son Excellence M. Président de euh, souhaiter la bienvenue à, au nom de tout le gouvernement, évidemment, souhaiter la bienvenue à son Excellence M. le Vice-président de la République sœur de Gambie, M. Mohamed Diallo, qui nous a fait l'honneur de conduire une forte délégation composée de plusieurs ministres et plusieurs euh, chefs d'administration pour une visite de travail, laquelle visite nous a permis de passer en revue des problématiques extrêmement importantes. Ces visites sont importantes pour nous parce que nous nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme et une vocation irrévocable qui est une ligne panafricaine. C'est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi depuis l'avènement de son excellence président M. Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se refait d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. C'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui la CDAO. Nous ne pouvons pas euh, encourager une énième scission alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, euh, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le, le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps il nous faut aujourd'hui faire preuve de dépassement, qu'il s'agisse des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie, par exemple, ou des relations euh, multilatérales dans les cadres euh, communautaires, il nous faut faire, preuve de dépassement pour éviter souvent toutes les considérations qui pourraient aboutir à des situations que nous ne souhaitons pas. Euh, et c'est pourquoi nous considérons dans cette œuvre de rassemblement, de rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples avec lesquels nous partageons cette communauté ouest-africaine, euh, les relations privilégiées particulières avec la Gambie, qui est notre voisin le plus proche pour une raison. Je ne parlerai pas de, de, considérations culturelles. Nous nous sommes exprimés tous deux à l'angle Wolof Monsieur le vice-président et moi-même lors de notre première allocution. Et ni le peuple gambien ni le peuple sénégalais ne peut revendiquer l'exclusivité euh, ou euh, un patrimoine sur cette langue que nous partageons en commun. Et toutes les autres langues que nous partageons en commun, le manding, le diola, le poula, ainsi de suite. Je ne parlerai même pas de ces considérations. Je passerai les considérations géographiques mais l'histoire, depuis quasiment l'aube des temps, a fait que nous sommes un et un seul peuple. Deux États, certes, mais un et un seul peuple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons M. le vice-président. Et au-delà des émotions que nous avons pu passer en revue avec lui, toutes les problématiques que nous partageons en commun, qu'il s'agisse de la préservation des forêts, particulièrement les forêts casamanceuses, les questions sécuritaires avec les trafics illicites, tous les trafics illicites qui souvent prospèrent dans les zones frontalières, euh, les questions liées à l'énergie, qui est la matière essentielle pour construire tout développement, la pêche, puisque nous partageons euh, en dehors des frontières terrestres euh, et aériennes. Nous partageons également une frontière maritime. Nous avons pu passer en revue toutes ces questions, les problématiques de défense, de formation, aussi bien sur les questions militaires que les questions civiles. Et nous avons pu remarquer à quel point nous, nous étions convergents sur euh, l'approche qu'il fallait et les solutions qu'il fallait apporter à ces questions-là je remercie Monsieur le vice-président pour cela. Évidemment, nous avons noté les insuffisances liées au cadre institutionnel qui a été quelque peu négligé ces dernières années, et particulièrement le secrétariat permanent qui a, en charge la matérialisation, le suivi et l'application des, mesures. Euh, les retards quelquefois sur le plan financier dans les cotisations et beaucoup d'autres écueils que nous avons pu passer en revue et sur lesquels les décisions ont été prises. En résumé, c'est vous dire que cette euh, matinée a été très instructive d'un côté, mais également a pu aboutir à des résolutions qui nous semblent extrêmement importantes pour les deux pays. Et nous allons en référer aux deux chefs d'État et continuer le travail comme nous nous sommes promis, euh, Monsieur le Vice-président et moi-même. Et nos ministres respectifs qui n'ont pas besoin de passer par des protocoles pour se parler, pour se rendre visite, pour euh, collaborer sur toutes les problématiques liées à leurs compétences. Donc nous sommes très satisfaits de cette visite. Nous remercions encore une fois M. le vice-président. Et tout à l'heure, nous allons l'accompagner euh, pour son audience avec son Excellence, M. le Président Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre. Excellence, merci beaucoup.